ay ndaw yi takkoo takkoo yu ñu fekk fii ci place de l'indépendance di daan seen doole di ko jaarale ci lii di raxas oto mu nekk lu ñu fonk lool bile ndaw di ci yëngatu bés bu yàlla sàkk waa man ci oto yi laa nekkoon mais bi ma ñëwee fii nii presque ay at maa ngi fii nii mais bi ma fi nekkee ba léegi tamit jub ak fulla ak fayda ak liggéey xam ne tamit ni ku si nekk li nga mën a amal sa bopp rek yaa mën a jaayante en tant que tamit Sénégal fi mu toll réew mi toll na foo xamante liggéey demeewul noonu te fi ñu nekk tey boo ñu gisee mën nga ñoo xeeb mais borom oto yi ñu jox seen oto yi ñoom xeebuñu wala chambre de commerce wala ci banque bi amoo foo gaare boo ñëwee sa oto nga ñuy jox ñu gaare loxo ñu fi nekk xamante nañ mosuñoo jël ne leneen la kon ñun jóge nañ fi bu yàgg mais am na ñoo xamante ay miliga ay nit doomu kër diw man de maa ngi ñëw buñ ñëwee ci kaw tali si dañuy seere jox ñu oto yi ñu gaarale ko ci parking yu baax buñ ñëwee lu ñu yéene lu ñu lu seen xol attaret ñu jox leen ko. moom mile di xamle lii di jom ak fulla mooy lu ko tax a dugg si bile métier ngir mën a am lu mu suturloo. Ah, souvent nit mën na ñëw jox caabeem jékki-jékki dem ñëw ne i eh, booy sama téléphone fàtte naa ko fi heure bu ñëwee téléphone am foofu la koy fekkaat gaare naa fi ay oto yoo xam ne ay 2 millions 3 millions day nekk si oto bi bu fekkee dërëm mu mali soxla wu ma ndax lan. damay liggéey lii laa xam quoi ndax lii mooy tax yow li ngay lekk mu lew la borom oto bu ñëwee mu la yéene nga xamante ne loolu nga am quoi xam nga la yàlla liggéey bi nii xam dëkk bi yaa ma gën a ñaata ay jeunes ngay gis ñu yëg si gaal nii seen mbokk mooy lool soxna si Sile nekk ak dawalkat bokk si seen i client daal di yëkkati ay kàddu seede tey rafetlu bu baax a baax seen liggéey. li ñuy def nii c'est très intéressant di liggéey di daan seen doole mënoon nañoo dem defi leneen parce que am nañ doole ay xale lañ. voilà mais defuñu ko dañuy toog fii di daan seen doole vraiment c'est à encourager par rapport ak seen moroom yi dugg ci gaal yi et tout ça vraiment c'est c'est à encourager à féliciter. yile ndaw nekk ay raxaskatu oto faray fii ci place de l'indépendance ñi ngi suturlu bu baax a baax ñi ngi ñaan état bu Sénégal ngir mu dimbale leen ngir seen liggéey mën a doxee comme ni mu waree.